doon wax nag président euh, président de la mu ni mu doon wax président de la république. ca gannaaw ca ginnaaw. dañoo wax ni dañoo wax ni. sos nañu mbooloo moo xam ni. sos nañu mbooloo moo xam ni. dañuy xeex terrorisme. dañuy xeex terrorisme. alhamdulilah. alhamdulilah. baax na baax na. waaye nañ tàmbali ci suñu bopp. mu ne waaye ñun nañu tàmbali ci suñu bopp. xam ni yu yu terrorisme kenn ko fi mën a bañ mu ne am na ay dérive ci réew mi du continuer nee na terrorisme terrorisme mënta ñàkk ba mënu fee ñàkk bañ a am. du yéen ngi tudd borom ñaari tur yi. du yéen ngi tudd borom ñaari tur yi. du yéen a ngi tudd loge yi. du yéen a ngi tudd loge yi. du yéen a ngi tudd lobby yi. du yéen a ngi tudd lobby yi. du yéen a ngi tudd yi. politique politique yi. spirituel. spirituel. lépp lépp ñu ngi koy tudd fi ñu toll nii. mu ni te fa muy mujj. terrorisme rek lay doon ci terrorisme rek lay daanu ci. violence. violence. rey ay nit yu dul mu ni ñu rey ci ay nit yu dul jeex. te teguñu ko fenn. nag ñi jiitu. mu ni kon ñi jiitu. yonent bi dafa wax ni. yonent bi dafa wax ni. sinfaanu min ummati. sinfaanu min ummati. iza salahu salaha isa sanaxu sanaxa naas. wa isa fasadu fasada naas. ñu ne ko ñan la. ñu ne ko ñan la. mu ne al umara wal fuqaha. yonent bi ne. yonent bi ne. sallallahu alayhi wa sallam. ñaara ngi ci société bi. ñaara ngi ci biir société bi. bu ñu jubalee. du ñu jubalee. ñëpp jub. bu ñu dëngalee. du ñu dëngalee. ñëpp dëng. ñu ne ko ñan la. ñu ne ko ñooñu ñan la. mu ne ñi yor nguur gi. mu ne ñi yor nguur gi. bu ñu jubadee. du ñu jubadee. ku mën a ku mën a tax réew mi du ñu jubati. kan moo mën tere société bi jubati. ku ñu dégg na yaa ngi sàcc xaalisu réew mi. ku ñu dégg na yaa ngi sàcc xaalisu réew mi. yaa ngi njaaloo ci réew yaa ngi njaaloo ci réew mi. ngi turyande ci yaa ngi turyande ci réew mi. yaa ngi jaay turu réew mi yaa ngi jaay turu réew mi. ngi dugg ci lu yaa ngi dugg ci lu nekk. nit ñi di ko dégg. nit ñi di ko dégg. réew mi di ko dégg. réew mi di ko dégg. yow mën ngaa waxati lu nit ñi dégg. mu ni ndax yow man ngaa yarati nit ñi ci ci njub mu ne beneen beneen waa gaañ mu ne beneen parti bi. mooy ñun sëriñ si nee mu ne mooy ñun sëriñ si. dañoo bàyyi atte yàlla yi. dañoo bàyyi atte yàlla yi. jàngale yonent bàyyi jàngale yonent yàlla Muhammad. bàyyi waxi nit yàlla yu baax bàyyi waxu nitu yàlla yu baax yi. topp suñu bakken topp bakken yi. firi aaya alquran nu ñu neexee. firi aaya alquran nim ñu commodé nim ñu neexee rek ñu firee ko noonu. interpréter xadisu yonent bi. interpréter xadisu yonent bi nim ñu neexee. bu ñu tëddee Serigne Touba. bu ñu tëddee Serigne Touba. nga ne du sama Serigne. du sama Serigne. man Tidiane laa man Tidiane laa. ñu tudd Alaaji Amadu Baro. ñu tudd Baye Cheikh Baro. nga ne man Murit laa. man Murit laa. sama yoon ci Cheikh. sama yoon ci Baye Cheikh Hadj Baro. lan la. mu ni lan la. loolu rek mu ni loolu rek la. bu ñu yor nguur yi jubale du du yor nguur yi jubalee. ñi yor yoonu yàlla yi jubal. ñi yor yoonu yàlla yi jubal. jàmm rek mooy am jàmm rek kay am. day jaar ci yoon te day jaar ci yoon. day metti nag day metti nag. waaye nun ci suñu bopp. waaye nun ci suñu bopp. ñoo koy xeex ñoo koy xeex. du ñu ne ci kaw. du nekk ci kaw. du sëriñ si du sëriñ si. nun réew mi la. ñun waa réew mi. ñun société bi ñun société bi. ñoo koy xeex mu taxaw. ñoo koy xeex loolu mën a taxaw. ñu àndul. du wax nañu am nañ pétrole. du wax nañ ne am nañ pétrole. du wax nañ am nañu gaz. du wax nañ am nañ gaz. wax nañ ne am nañ yeneen ressources. du wax nañ am na yeneen xeetu ressources yu ñu am. nañu bañ a juboo àndandoo. nañu bañ a juboo àndandoo. saay saay jóge fële. saay saay jóge ca àll ba. imposé ñu. imposé ñu. loo xam ni. loo xam ni. duñ ca man tous. duñ ci man dara. ñu exploité ko. ñu exploité ko. depuis indépendance ba léegi depuis indépendance ba léegi. 300 ans avant indépendance. 300 ans avant indépendance. ñu euh, euh, pillé réew mi. piyee réew mi. li fi am ci alal. li fi am ci alal. ñu def ko ci seen i euh, saak dem seen yoon. ñu def ko ci seen saak dem seen yoon. nañu bañ a juboo mu ni daal nañu bañ a juboo rek. nañu bañ a àndandoo rek. nañu bañ a àndandoo rek. nañu bañ a euh, dal rek. bañ a dal rek. duñ ko deful. duñ ko deful. kenn mënu ci dara. kenn mënu ci dara. yàlla nañ ci yàlla musal. yàlla nañ ci yàlla musal.